shukran aywa fa qiila lahu fa ida kaana alwujudu waxidan fa lima kaanat alzawjatu xalaalan wal uxtu xaraaman fa qaal alkullu indana xalaal walakin haulaai almahjubuun qaalu xaraamun fa qulna xaraamun aleykum lii gis nga mi ngi ko jëlee ci alfurqaan bayna al awliya bu ibnu taymiya loolu du masdar suufi jële ko ci majmuul fatawa loolu du masdar suufi mm. jële ko ci bughyatul murtad bu ibnu taymiya mm. loolu du masdar suufi kon wax ji moom mm. jëlewu ko ci benn masdar suufi mu teg ci lii nag mu ne kon nag fa haula innaasi isan ñii idan laysa indahum maa yusamma bil xaraam lu tudd xaraam amul ci ñoom falal uxtu taxrumu ala axiha nee na eh, sœur bi araamul ci frère am walal ummu alal ib alal ibni doom ju góor ji yaay ji araamu ko fii diini haulaai ci diine ñii dégg nga kullu dalika binaan ala aqidatin fasidatin lam yaataqiduhu lyahud wa nasara fii moom dama fiy wax rek oustaz Cheikh Tidiane Gaye bi mu fi egsee dafa bind hakaza ndax lam yaataqiduhu lyahud ji mu wax ndax dafa waroon a wax lam yaata lam taataqidha macha allah waaw ndax dafa aqidatin fasidatin lam yaataqituhu samir bi dellu ci aqida bi ba noppi mu góoral ko mais lool sax man garaawuloo man li wax ci tasawuf loolay sama problème mais lee moom naxu la wahiya anna al wujuda waahid Mansour Samb lii ku ko wax su téeree ko alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah waaw may leen ko xalifa maa ngi lay gërëm amul kenn koo xam ni dana bind tekki marché bi Euh, ba pare bëgg am sañ-sañ ni kenn du ci wax. Mm-hmm. alxur xur. maa la yëkkatal. muy tawfeex ju rëy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 woote 77 251 04 05